Mm. damaa nekkoon fenn di faju mm-hmm. sonn naa trop. Mm-hmm. su ma fa demee damay daanu. Mm-hmm. ñu may naan dangaa am jinne danga nit yow moom dem fu nekk nag. ma fay fa un million. gisuma dara ma ñibbi Gàmbi suma yaram bi di metti. Uh-huh. su ma ko woowee ne ba tey weruma duma wax dara mu ne ma jëfandikoo lu ma la jox rek di nga ba benn jour ma mère woo sama jëkkër ne ko ne woowal diw ne ko ne werangu ba tey. Mhm. mu woo ko mu ne sama jëkkër na ko dimbale si la ma sama jëkkër ne mu waat na si yàlla dootu ko woowatee. Oh? si laa kool si Ibrahima Keita expliqué ko mu ne ma ñëwal naa la faj te yàlla tax. ndeysaan. soo si laa fi ñëw nag. Mhm. maa ngi fay daaw ma doon du doon lekk du ma def dara. Mhm. damay toog ñaari fan du ma lekk. waaye fu nekk nii. damay lekk nice ba suñu waa kër yëpp a kontaan. ndeysaan ndeysaan léegi yow dama lay laaj foofu noonu nga nekkoon ñaata weer nga fa def fa nga demoon foog ne fa ngay fajoo fa nga ñàkkee sa un million ñaata weer nga fa def ñu lay daanuloo lu ne fu ne ñu yóbbu la fa di la daanuloo. am naa fa weer daal. te gisuma daal. te man ñu ma doon faj ak lu ma daloon dañ ute. Mm. doomu ñoo ma toppoon te man. kan kan ma doon faj. kan moo la xamal li la topp li ci yow kan moo la ko xamal. Cheikh Ibrahima Keita. ndeysaan ci ñaata fan sa diggante ak yàlla ci ñaata fan la la Cheikh Ibrahima Keita faj. ñaari fan. ñaari fan nga wér. ñetti fan lañu waxante woon mais ñaari fan laa am daal. allahu akbar. man daal su sañoon. Mm-hmm. ñu ñëw Ibrahima ndeysaan. man daal laa gis. fan waaye xam nga ku la il faut que nga ñëwal sa dëgg la. dëgg la. moom daal fu mu nekk nii yow fan nga gisee Cheikh Ibrahima Keita ba xam ne sa jàngoro kii jëmm ji mën na ko faj fan. man dama ñibbi dañ bind naa ba Gàmbi waaye mel ni daal daa am lu may wax dellu dellu dellu. allahu akbar. su si dama ko woo sax defe ne keneen lay jot. Mhm. ko jot ko expliqué ko ne bu ma ko woowee lu mu waxee man neex na mhm. te ñii nay dañ lay soo leen woowee lu mu la wax bu neex. xam nga loolu yow na si tàntàn. Mariama mii ku ne xàmmee na ko ku ne xam na bëre ba mu nekkoon ñu koy daanuloo di ko dóoruloo lu nekk ñu koy def mënutoon lekk mënutoon naan mënutoon nooyi mënut woon am jàmm fii la ko amee ci kër Cheikh Ibrahima Keita. Mm-hmm. te fan lañ fi am. Mm-hmm. Eh, am naa kontaan bu baax. parce que. donc fu ñu dugal leen au million. Mm-hmm. léegi ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii ay cinq cent mille. Hmm. ndeysaan boobu duggul. ndeysaan est-ce que. léegi nag boobu duggagul. Hmm. te amuñu jëmukaay daal. waaw waaw. yàlla def ñu ñëw ci Ibrahima Keita. Hmm. ah def foofu loo xam ne. xaaju loolu. wallaahi xaaju ko de non xaaju ko. ñu am ku weer. yàlla ak sa jëmm ji nag. moo tax sant nañu sant nañu yàlla. waaw kay sant nañu yàlla. jërëjëf jërëjëf Sadio. ndeysaan ndeysaan kontaan nañu mbokk. dafa am fu ma jaaroon. mu métti woon trop. après ma ñëw si moom. mu faj ma. te yàlla rek tax. laaju laaju ma benn xaalis. dëgg la nga mu faj la. accueil la. waxtaan ak yow. ma kontaan trop. macha allah. parce que tamit fee métti woon na trop eh, daanu sa yaram bi di métti. wala Kenya. waaw. Mhm. sa yaram bi di métti. Mhm. te jëlewoo fa tamit wér. ndeysaan mais soo ñëwee mu faj la. Mhm. nga wér. te du faj la rek te yàlla tax. maanaam yow laata ngay ñëw fii ci Cheikh Ibrahima Keita dafa am foo nekkoon foo xam ne da nga doon daanu di gaañu sa yaram bi di métti. waaw. Ah, ñaar ñaar ñaata bés nga fa def foofu. man yàgguma fa nag. 15 jours laa fa def. 15 jours. te wéroo te wéru ma fa bit akbar damaa ma gëna febar gëna guddi du ma nelaw sama yaram bi di metti oh. ma gën fa jëlé febar la parce que may dem dara jottu mo dama tok ñii di sétan vidéo mu mel ni dand ma dugal hmm. nga dem fa allah akbar bu ma demee may daanu uh-huh. mu metti oh. woon trop mais saafara su jur jàngoro waaw uh-huh. feebar daal laa mais wu fa allahu akbar après si laa gisee Cheikh Ibrahima Keita ma ne xaaral ma ñëw fi. ndeysaan. te bi ma ko woowee téléphone tamit. Mhm. damaa wuyu ni mu waxee rek laa xamante ni. Mhm. soo ñëwee. Mhm. sa saafara dina faj. wallaahi wax bu sedd. ndeysaan. mu ne ma ñëwal fi boo ñëwee bu soobee yàlla sa jàngoro dina faj. dëgg te tamit macha allah. ban genre feebar nga jëlee foofu. guddi du ma nelaw sama yaram bi du mën a lekk. du mën lekk. comme si mu ne ma damaa yor ay jinne mm-hmm. moo dugg. est-ce que. loolu rek mooy metti mu metti torop. nga dem daanu mm-hmm. Mm-hmm. dogal na ni. mu Fatma, ma li sama ginnaaw di bis gan lëjël ma lakkal ma torop. ak yeneen ak yeneen yoo xam si daf ma doon gàllankoor yoo xam ne ki mënu koo wax. dëgg la yàlla dogal loolu yëpp deñ na. te Ibrahima la may mu dimbali ma. ba deñ. dëgg loolu moo tax ma ñëw fii tey. dëgg waxuma ni man naa wax de. Mhm. man maa ko ni. Mhm. nan ma jël. Mhm. man ma wax. dëgg la ndax wax ci may wax. dama ciy dimbali ñeneen. dëgg la ndax moom moo la dindil jàngoro bi nekkoon ci sa yaram daal. waaw moo ma dimbali jàngoro ji nga xam ne rab moo ma duggoon. ngelaw seytaane dugg na ma. dëgg la ñaata at yaa ngi ak jàngoro bi. maa woon ak moom ñaari at. di woyaale moom te tooguma woon fu ne maa ngi fa dëgg la gisoo fa résultat. waaw kay. dem ko sëriñ yu bari mhm, mhm. ma ñëwee fii la mhm. yàlla dogal. dëgg la sangu ci. dem ko ci sëriñ yu bari bi ma ñëwee fii la yàlla dogal. moom mu dëgg la xam-xam boo ko bëggee jarul ngay làmbaatu feneen. ñëwal ci Cheikh Ibrahima Keita. Sénégal gii ñu ne. yàlla da koo teg ci